internet ki Wassare Lamb ñu ngi nuyu ñu si troisième combat de la soirée si diggante Aliou Téere ak Pape Junior Pape Junior moo ñu woon ginnaaw na tànk ba Aliou Téere moo ngeem moo ngeem lu ñuul mbëri fu mu toll nii bëri nañ cinq minutes noppal trois minutes daal del si biir géew bi Aliou Téere Pape Junior ñaari mbëre ngay bëre arbitre bi ne ngeen bëre arbitre toogal jël na tànk ba arbitre jël na tànk bi bàyyiwaat na ko tey bii journée tey Pokola tey Serpent Noir loolu lay grand combat bi <laughs> Fouta Production woo nii Pape Junior a ngi dóor Pape Junior ngi dóor di wut buntu waaye ba léegi amagul Alioune Tere jàpp na ngemb Alioune Tere jàppul Pape bàyyi na loxo droite bi Pape Junior bàyyi na loxo droite bi jàpp loxo gauche day dem ñoo ngay sa suuf Pape wut na ko Tere jàpp na ko noom ba dig fa Paa di ko fa génn Paa ah, Paa di ko fa génn daan na daanoogul benn appui mos des Paa di nga jóg Aliou Tine Pape Senior ñu ngi si suuf appui puusal Aliou Tine Pape Senior Paa di nga fa génn Aliou Tine Pape fa génn def na deux appui appui bi xëy yanu wala boo fa génn ma xam ne yaay ndaanaan waaw waxoon naa la ko Aliou Tine tey Aliou teel a dana Pape Signor Thank you.